salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar salaatu في كل سير وفي ظفر حماني ألا ماهن ما الأبصر والسفر heure bi daaw raj-raj loo ji bari na ñi bëggoon parrainage ñëpp fi lañ doon def dëlëf dëlëf ñi bëggoon i candidat fi lañ ko doon def waaye moom bosom changé wut de xar yam doon indi masalik la indi ci tabaski gii lim doon def sëñ Muntaxa la ko defaat noonu la ñëwaat ci yow nee na xanaa nga ne ko dellu rek ca gan waaye boo ko téyee sax mu toog ni mu defee Serigne Mountakha muy wéy juróom noonu la la jàppe muy un homme diplomate ku am dignité personnalité qualité quantité fidélité sincérité am efficacité ba pare xam boppam te nun nag Mbàkke Sëñ Tuubaa duñ ko neexale kenn de ndax lu mu nu jox li nu amu ko gën muy Sëñ Tuubaa bi muy dugg ci dëkk bi dama ne ko dama ko doon testé manipuler naa côté bu ne mu ma bala maa dem fenn ma ne mu ne mu ma sukk ci kanamu sëñ Tuubaa jaayantewaat ak moom cofeel gi ma am ci Rasulullaay ma feddali ko sama digganteeg moom lii la def. kon lii rek la woon ma doon ubbil sëñ Modou Mbuub sëñ Seydou yow laay jox kàddu gi. ñu ngi sant sëñ Tuubaa sunu yaakaar tey ak bu ñaan ñaan Cheikh Mountakha sunu borom bàyyi ko fi te yàggal ko te may ko weer xam naa li ma ta wax lépp ma Mamor wax na ko ndax ñun ak ñoom benn lañu te itam bu ñu waxee rek doy na sëkk waaye xanaa ñu nuy soxna su baax si toog nuyoo boo xam ni nuyoo bu tedd lay doon soxna Bali bintu sëriñ Souhaïbou ibnu Xaadim Rasul waaye soxna Bali Muntaqa kii nga xam ni dafa jaay ak njureelam jënde ko ak taalibe kii nga xam ni boo bëggee mu bëgg tuddal soxna jaara baa nga tudd kii nga xam ni tey moo fi nekkal Serigne Touba Mbacke bég nañu lool kii ñu àndal di Cheikh Alassane seen soppe yenent bi alayhi salaatu wasalaam yaakaar naa ni ëtt bi miin na ko lool bi mu fi ñëw yàgg na bi muy jàpp ci sama loxo dama indi fii léegi mu mat fukki at léegi mu mat ko nga xam ni at mu jot màggalu Tuuba Cheikh Alassane fii lay reere ci yow loolu amul bis boo xam ni danaa nuyoog soxna si ba jeexal te duma laaj a Alassane fu mu nuyoog moom rek bu ne ma Moodu ma ne ko Mbacke mu ne ma ana Cheikh bi ma ne ko mu ngi fi mu mu mu ni jotal ma ko sama nuyoo barki dem yàggul sa mag ju baax ji bi mu fi bàyyi ko fii ci Poroxaan Cheikh Alassane ni day ñëw jaali si muy koor waaye keroog ba nu la jotee waay waaye da da da nga koo teggi waaye fal ko ndax booba yaa nga sow booba mu jëm si tuba moom mi toog bàyyi la xel lool buy seetaan di xool xam ni Touba gi ku fi ñëw jaar ci Cheikh Mountakha balaa génn jaar ci yow loolu sa jikkoy bopp la. soxna baal ya baax soxna Bali ya tedd ya yaa yaa dis gor yaa teraanga waay waay ku la xam jaxasoog yow dana xam ni jaxasoo naag ku baax jaxasoo naag ku tedd waaye jaxasoog naag ku bëri valeur barki dem bi nga ñëwee Tiwaawan ci xadara Cheikh Seydil Hadji Malick maamul loo am ngant waay waay yëkkati téléphone am woo ma fa nga ne keroog waay waay bi ma ñëwee da nga ni ma samay kàddu la la bëgg nga yëkkatil ma ko. nee na mi ngi wax jërëjëf Serigne Touba. nee na mu ngi ñaan yàlla Cheikh Mountakha. yàlla yàggal ko fi. nee na mu ngi nuyu nag bu baax. ak ziyaar. nee na mbokkam xaritam soxna Baali Cheikh Muntaqa. nee na soxna Kiné Cuun lii nga wax nee na dëgg la. nee na ci xeetu teraanga yi nga xam ne soxna Baali mi ngi ko koy defal. nee na bokk na ca. ca jamono. daanu ma woon sax dalal nee na daaw ko sax dalal fi day fii ba guddi jot. nee day toog fii ba guddi jot. mu def délégation bu rëy rëy mu def délégation bu rëy a rëy fekk ma ca këram ga nekk ca HLM. fekk ko nag ca këram gële ca HLM. ñu tàmbalee waxtaan. ñu tàmbalee waxtaan. ba 5 du matin. ba 5 heures du matin. dama daan téeméeri nit. ne booba téeméeri nit la daan àndal. mu defal leen ay xeeti yu ne. soxna Bali mu baax mi def ko. sëñ Mamoun wax na dëgg. sëñ Mamoun loo géddel mu baax mi taxaw nee na wax na dëgg. bi nga waxee léegi li ko sëriñ Mountakha defal. nee bi ñu nettalee léegi li la Cheikh Mouhamadul Mountakha defal. sama xel dafa dafa sori. sori na. ndax bi sëriñ Sidi Mokhtar làqu. nee na bi Cheikh Sidi Mokhtar làqu. ma ñëw ci soxna Bali. nee na mu ñëw ci soxna Bali. Mhm. nee na guddi. du ma wax ne sax man la ko njëkk paas waaye bokk naa ci njëkk waxanteeg sëñ Mountakha mu doon Serigne Touba. keroog bi Cheikh Mouhamadul Mountakha doonee Serigne Touba. Cheikh Alassane ñëw fii di jàll si. keroog fii ci kër gii la ñu toog ba guddi gi sori soxna Bali jël téléphone bi ni ko ni ko ni ko nuyool Cheikh mii sëñ Touba. fii fii fii la xewee. teraanga boobu. nee na teraanga jooju. mu ngi méngoo ak li li nga wax ci léegi. mi ngi méngoo ak li dal maamun léegi. nee na nag. sama jaar moom. jaar-jaaram ak moom. duñu fi jóge fi jóge. ci ci yiwam. ci sa yiw. ci mbaaxam. ci fonk doomu aadama. nee na ci fonk doomu. nee na ci jàpp sa njàmbur ak nag bëri goo bëri yërmande nee soxna Bali ne yaa bëri yërmande dafa am benn sëriñu soose nee dafa am benn sëriñu soose wax na ko léegi Cheikh Bachir dañu koy laaj nee na dañu koy laaj baatu inna allaha ma sabirin baatu inna allaha ma sabirin nee na lu muy tekki mu laaj ko gaañi ñu ne mu laaj ko gaañi. gaañi wax ne que yàlla mi ngi ànd ak aji muñ yi. nee na yàlla wax ni mu ngi ànd ak aji mun kaj yi. mu ne déedéet. mu ne déedéet. mu ne li tekki. nee na aaya boobu la may tekki. mooy yàlla. yàlla mi ngi ànd ak. mi ngi ànd ak. ñi dul onk. ñi nga xam ni duñu onk. te loolu. loolu. mooy jikko. mooy jikko soxna Baali mu baax mi topp. soxna Baali nag. nee na soxna Baali nag. damaa ñëwoon. nee dafa ñëwoon. feddali la. nee na feddali nee na cofeel feddali la yëgeel nee la yëgeel feddali la fonkeel nee nag sag fonkeel fonkeel ci man dem ci moom nee na fonk gi nga ko fonk nag waaye fonkeel googu nag jóge ci moom delluwaat ci yow di nuyu sa njaboot gi yëpp nee na sa njaboot gii toog mu ngi leen di nuyu ndax kii toog ci suuf Maria ne soxna Maria mu baax mi toog benn ci ay doom jigéen sama doom la benn ci ay doomam yu jigéen sama doom la. ndax baayam. baayam. ak man. ak moom. ñoo bokk benn baay. ñoo bokk benn baay. ba ñu koy maye. ba ñu koy maye. maa ko maye. waay waay keroog moom la ñu ko bàyyile moo moo def une forte délégation ñëw maye ko. wallaay dëgg la ba bërki démb rek. nee na ba bërki démb rek. ñu ngi ñu ngi waxtaan. nee na ñu ngi waxtaan. soxna ci ne cuun. nee soxna ci ne cuun. dundam lépp. nee sa dund gépp. soxna Bali. soxna Bali la. wax dëgg yàlla. waay waay ne wax dëgg yàlla. waaw ndax euh, yenn saay day ñëw sama kër guddi. nee na yenn saay mu ñëw këram guddi. soo tuddee soxna Bally day mel ni ku excité. nee na soo tuddee soxna baal Bally dafay mel ni ku excité. ma xam ne jam jamu teraanga yi ñoo bëri. nee na mu xam ne jam jamu teraanga yi ñoo bari ñoo bëri ci moom ñoo bëri ci moom. waaw dafa soo tuddee soxna Bally rek. waay waay nee soo tuddee soxna Bally mi toog. dafay perdre connaissance. nee dafay perdre connaissance. waaye soxna Bally. waaye soxna Bali. Eh, da nga yor sa jikko maam. ne da nga yor sa nee nee na na nee na nazaxtu bi sukri. si sikaayatan. moom moo eh, jaay jàmbat. ne nee moo jaay jàmmat. jëndee ko ab cant. nee na Serigne jaay na ak jàmmat nee na jëndee loolu cant. cant gu wér. moo tax. bi tubaab bi ne da koy yóbbu ca ca Gabon. ne bi tubaab bi ne day yóbbu sëñ Tuubaa Gabon. ñi xam métaphysique. ñi xamee. métaphysique métaphysique. mooy unicité de Dieu. mooy mooy mooy mooy l'unicité de Dieu mooy kennal yàlla. d'accord nañu ne. ne d'accord nañu ni. muy ne nee na mu ZZ. mouche ZZ. nee na mu ZZ. yoo bu nekk. ne nee na yoo bu nekk. foofu ca Gabon. nee na foofu ca Gabon. ak jasit. nee na ak jasit. bu suuf. nee na bu man suuf. mën ndox. nee na nee na jësi jë mën na suuf mën na ndox. ñoom ñaar ñëpp ñu ngi yàkkamti. nee na ñaar ñooyu ñu ngi yàkkamti. ngir Cheikhul Khadim egsi. nee na ngir Serigne Touba yegsi. ndax dafa am ñu fu ñu jaar ak saamoor yi ñoom. dafa am fu ñu jaar ak yi. ndax bi tubaab bi indee saamoor yi. nee bi tubaab bi indee saamoor yi. saamoor yi bi ko Mujzeze mattee. nee bi ko Mujzeze mattee. dafa am hémorragie interne. ne dafa am hémorragie eh, eh, interne. yaram bi di tàng. ne ne yaram bi di tàng. sibiru mu def sibiru. jaaree fa génn àdduna. ne fa nag génn àddina. muy condamnation à mort. muy muy muy condamnation à bi tubaab bi bëggoon ca moom. ne ne bi tubaab bi nag bëggoon ci moom. bi Cheikhul Khadim yegsee. ne ne bi Serigne Touba nag yegsee. ñoo am beneen liggéey. ne beneen liggéey. mooy mooy mooy muus muus zegze waaw yow boobu nag ne bi mooy mooy mooy mooy mooy mooy yow ga yow ga boobu ak suñu yow bokkul. voilà très bien li leen ne ne li leen utale. climat bi suñu yaram miin. ne ne climat bi suñu yaram miin. mooy climat sahélo sahélien. mooy climat sahélo. sahélien sahélien. mu waaw climat équatorial la miin. ne ne climat équatorial la miin. te suñu yaram ko. ne suñu yaram miinu ko. moo tax tubaab bi. moo tax tubaab bi. bi mu yëkkatee Cheikhul Khadim. ne bi mu yëkkatee Cheikhul Khadim. li mu ci jublu woon ne li mu ci jublu woon. mooy condamné ko à mort. mooy condamné ko nag à yóbbu ko foo xamante ne. ne yóbbu ko foo xam ni. su ko yóbbi matte ne su ko yóbbi matte. da koy def da koy def. ni saa moori ni saa moori. la ilaha ne ni comme ça coow du am. Cheikhul Khadim waay waay waay waaye Cheikhul Khadim Serigne Touba nazaani min al wara baaxil Khadim nazaani min min al wara uh, baaxil Khadim allamahum bi annani Abdul Khadim foofu la mbir mi toll. nee nee na foofu nag la mbir mi toll. Cheikhul Khadim nee na Cheikhul Khadim. borom xam-xam yu mag yëpp. nee borom xam-xam yu mag yëpp. d' accord nañu ni. d' accord nañu ni. mu mu mu zeze. su ko tiimaan. nee su ko tiimaan. dafay dafay barkeelu. nee dafay barkeelu. ci yaram bi. nee na ci yaram bi. yaram bi. ak xet xet gi nga xam ne nag mooy bàyyi ko nag ci ci yaramu Serigne Touba. beneen bi beneen bi. mooy jasit bi mooy jasit bi. xam nga courant katanga. courant katanga. jasit bi dafa miin ndox miin suuf. nee na jasit bi miin na ndox waaye miin na suuf. Serigne Touba. nee na Serigne Touba. dafa war ndox bi. war a utiliser nag ndox mi. moo tax à chaque fois mu. moo tax à chaque fois mu dem. wàcc wàcc Mamor xam na fi may wax. ne ma Mamor xam na fi muy wax. ni jasit bi tiimee Cheikhul Khadim. nee na jasit bi bi nga xamee ni tiim na Cheikhul Khadim. nee koy dandu tuuti. nee da koy dandu tuuti. nee na muy yëngal geenam. ngir barkeelu. ngir barkeelu. ci leer gi nekk ci moom. ci leer gi nga xam ne nag moo nekk ci moom. waay waay ne fi muy daanelee. mooy. ci rapport yi ñu def. mooy mooy ci rapport yi ñu def. France def ko nee na France def ko. professeur Baba Kaké. nee na professeur Baba Kaké. nekk fii ci Guinée. nee na nekk ca Guinée. dafa bind benn téere. nee dafa bind benn téere. jagleel ci. nee na jagleel ci. Cheikhul Khadim nee na Cheikhul Khadim. nee li yéem tubaab bi. nee na li yéem tubaab bi. mooy ñàkk jàmbatu Serigne Touba. mooy ñàkk gi nga xam ni Serigne Touba jàmbat na ko. beneen bi beneen bi. mooy lu fitna bi tar-tar. nee na lu fitna bi tar tar. soo ñëwaatee la lendemain. soo ñëwaatee la lendemain. tiim ko tiim ko. muuñ jaa ngi ci moom nee gi mi ngi ci moom. moo tax moo tax. jikko yooyu. nee na jikko yooyu. la soxna baali. waay waay nee na soxla soxna baali mu baax mi. jël ci nee na jël ci moom. waxtaan bi nag euh, maam. waxtaan wi sëñ Mamoun. yenn saa yi su yàggee. yenn saa su yàggee. baax na baax na. ndaxte. ndaxte. ku ami soppe. waay waay ku ami soppe. ami noon. ami noon yenn saa yi nga dégg loo xamante ne. yenn saa yi nga dégg loo xam ni. noonu wax ko noonu wax ko. du la neex du la neex. waaye su fekkee ne soppe. waaye su fekkee ne soppe. bàyyi na léppam bàyyi na léppam. ñëw toog di wax ci soppeem. ñëw toog di wax ci soppeem. li muy wax lépp nag di dëgg. te li muy wax lépp di dëgg. xol war naa sedd. waay waay xol war naa sedd. yàlla nag. waaye yàlla nag. borom xam-xam mag bi. borom xam-xam mag bi. dafa wax ni ni la yàlla def. ne dafa wax ne ni la yàlla def. ngay muñee. ngay muñee. li nit ñi di def. ni la li la nit ñi di def. sa jaan daal wàcc na soxna Baali. ah soxna Baali soxna Baali soxna Baali. sa jaan Cheikh Alassane nee na sa jaan wàcc na. kanam yi ma gis fii. ne kanam yi ma gis fii. ne kanam yii ma fi gis. kenn sibooru la. nee na kenn sibooru la. dëgg la ñu ànd yow. ne dëgg la ñu ànd ak yow. xam nga dëgg boobu mooy lan. ne dëgg jooju mooy lan. mooy yow mii toog nii. mooy yow mii toog. li nga am lépp delloo nga leen ko ne delloo nga leen yàlla dëgg la bëgg. la ilaha illallah caay. yàlla dëgg la ne ne ne. Cheikh Alassane ne yàlla dëgg la bëgg. cofeel gi. nee na cofeel gi. waaw dafa bëri ci moom. dafa bari ci moom. waaw waaw waaw lool. lool. yaa tedd. soxna Bali Cheikh Alassane nee na yaa yaa tedd. ci ak Mariam yi. ne ne waxtaan na ceeg soxna Mariam yi. waxtaan naa ci ak soxna Kiné. waxtaan naa ci. waxtaan naa ci. ak sama notaire. ak notaire. sa doom. maître mais maître Lika. waxtaan naa ci ak ñeneen ñoo xamante ñu ngi lay fréquenté fii. waxtaan na ci ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi lay fréquenté. ak façon def bi nag. ak façon def bi. mooy teddaange bi. mooy teddaange gi. ni muy defee soxna Bali ak désintéressement. ni ni ni ngay defee ak désintéressement. moom lay def ne moom ngay def. yal na yàlla yàggal sa taxawaay. yal yàlla yàggal sa taxawaay. yàlla guddal sa fan. yàlla guddal sa fan. yàlla yàggal la. waaye waaye soxna Bali yàlla yàggal la. lii nga yëkkati ko ci doomu aadama yi. nee na lii nga yëkkati nag jëmee ko ca doomu aadama yi. yàlla sunu borom fay la ko. nee na yàlla na la ko yàlla fay. ci barke wa sallam. nee na ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. la. nee na yàlla sàmm la. sàmm ñun sa njaboot. waaye waaye sàmm nag ñun ñii nga xam ne ñooy sa njaboot. ndax ñun ñëpp sa njaboot lañ. ne ñun ñëpp sa njaboot la benn fi may nag soxna Bally. <laughs> ne ne fi muy daanelee soxna Bally. maamu dafa am benn guddi. sëñ ne daa benn guddi. mu woo ma ne ne mu woo ko téléphone. loolu sax convocation la. ne nee na loolu sax euh, euh, c'est une convocation. wax benn nit na ma jël si. ne nee na wax benn nit na ko jël si. boobu temps maa ngi doo génn ci kaso bi. nee na boobu temps mi ngi doog a génn ci kaso bi. mu woo ma parce que sama yam tàng nag ci ñi fi nekkoon. nee nee na mu woo ko nag ndax booba yaramam tàng na ci ne fi nekkoon. mu convoqué ma guddi. nee mu koo ko nag ko guddi. ni dama bëgg. ni dama bëgg. nga noppalu. nga noppalu. ñu ñu ñëpp dañ la yëg. di teel teel lii <laughs> noppalul. wallahi wallahi tëlli tëlli ji may tëlli tëlli gi am dama bëgg nga noppalu waay waay waay Cheikh Alassane te nga noppalu wallahi wax ma ko ci yërmande nee na wax ko ko nag ci yërmande ci yiw moo tax ñi fi nekkoon arrangé nga leen lu rëy ci man. nee na ñi fi nekkoon arrangé nga leen lu rëy ci moom. ndax après noppi naa. ne après noppi naa. ba waaye ba mu noppee nag. yenn saa yi sax ay nit wax ne. ne yenn saa ay nit wax ni. est-ce que kii sax ñi fi nekk jënduñu ko. est que kii sax ñi fi nekk jënduñu ko. ma ne sama waa ji lay ma rek. mu ne sama waa ji lay bañ mu dégg ma rek. benn bis ma am lu ma xaw a wax rek xaw a xaabaabal. nee na benn bis mu am lu mu lu mu wax lu xaw a xaabaabal. gis numéro am jëlu ma. nee na gis numéro am jëlu ko. mu woo imaam Ahmedi Ndoye. mu woo imaam Ahmedi Ndoye. ne imaam ni imaam. soxna si. ani soxna si. mu ne ma léegi laa raccroché moom mu ni léegi laa raccroché ak lu mu wax. mu ne lu mu wax. mu ne ma teel teel ji lay wax ba tey. muy daal teel teel ji daal. <laughs> fa lay daanelee wax <laughs> ne fa lay daanelee wax di sant ñëpp nag ne mu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm gaa ngi nii soxna Bali njaboot gaa ngi nii. xam nga leen xam nga leen. ñoom ñëpp sant nañu la. ñoom ñëpp sant nañu la. gërëm nañu la gërëm nañu la. lii yàggee nga ko ak ñun. nee na lii yàggee nga ko ak ñun. yal na yàlla fay la yal na yàlla fay la. alxaqu min rabbikum. alxaqu min rabbikum. fa man shaa fal yu'min. fa man shaa fal yu'min. wa man shaa fal yakfur. wa man shaa fal yakfur. wasalaamualeykum wasalaamualeykum. wa rahmatulahi wa rahmatulahi taala. wa barakaatu wa barakaatu. natan li kulli janna. min daaratil minna niyaasal minna ataani yal markabu fii daari min nan inda tasin tadxulani daari min nan ginnaaw bu nu sante yàlla sunu borom noo ngi julli ci sangi sangi Seyduna Muhammad dellu di sant Serigne Touba Xaadim Rasool di ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaxa yàlla na fi yàgg te wér mu naalal diine naalal ko lislaam mu àggale koog sagoom téeméeri at yu tàmbali tey te nu ànd koog moom noo ngi yëkkati kàddu yu sell yu bàyyi ko soxna Baali taxaa bintu Sëriñ Suhaybu Xaadimu Rasuul jëm ci ganam gu tedd gii mu am nga xam ne day xaritam di soppeem di wëllëreem léegi ci biir kàddu yi dafa am ku wax daan ne fukki at ak lu topp soxna si woo ma ma sëgg mu ne ma ëpp na ñaar fukki at ak lu topp bi nga ñëwee nag. nga fekk fi ñoo xam ni mooy ñoom te mooy moom dara mënu cee dem bàyyi moroomam ndax la sëñ bi ñaanoon zuriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabil Mustafa tajtahidu fekk nga fi ñooñu soxna Mbène Mbacke ngi nii toog di doomi sëriñ Abdou Khadir Mbacke Khadim Rasul imaam yi imaam yi mi ngi nii toog soxna maam say mii beleel di doomi Serigne Cheikh say Mbacke mii xalifa Serigne euh, euh, Sonhibou waaye nag di kilifa soxna Bali mii toog soxna Xaadimatu mii toog sëñ Touba xamoon na ni lu ne dina ko am sëñ Touba lu ne dana ko am waaw Xaadim Rasool la tuddee boppam waaye ndeke ne Xaadimatu yaa ngi ñëw te dañuy dooni jigéen di doomi Serigne Fallou Mbakke moom Serigne euh, Sonhibou ànd ak soxna so mu soxna maam Assa moom it di doom ci sëñ Fallou sëriñ Fallou son yi bu nag diggam ak soxna Bali lu àdduna bépp maa sa xam la mooy diggante boo xam ni ñoom ñaar danoo bokk baay ba noppi ni soxna baali defaat ko baay waaye nag yàlla la mu la mu ca fayaat soxna baali mooy soxna Bousso mu sëriñ Abdou Lahad mi ñu dénk sëriñ Fallou moom ak soxna Baalee bokk baay ni soxna Baalee di magam waaye moom bi daa wëlbatiku def soxna Bali mii muy ndeyam kon jootaay bii ni mu demee. firi na lépp léegi rek sëñ Abdou Lahad Mbacke mi ngi nii toog moom sëriñ si Ahmadou Mbacke moom sëriñ euh, euh, Soyibu moom it di jàmbaari baayam waaye di kenn ci soxna si waaw di siyaare bu baax mboolem ñi nga fi fekk soxna Maria Maane soxna Maria Maane noonu nga ko waxee rek ci yow noonu it moom la demee fii kon booy ñëw mën nga ànd ak moom mën na le fee xaari te dalal la ndax cër bu ni toll am na ko ci kër gi ci yar ci teggin ci pasteef ak ci ak murite kon noo la koy gën a seereel nga xam ni fi ko fekk nawee nañ ko fi loolu ci ay taxawaayam wax nañ ma léegi ni Cheikh Mamadou Bassir moom it mi ngi fi toog moom Serigne Moustapha Bassirou waaye it di doomi soxna Ami Mbakke mi bokk euh, soxna Bali mii benn wéyjur muy soxna am yi mu sëñ Abdou Borom dër bi mi la moo doon wax léegi ne la moo noppalu ci jamono yi poroxaan nee na ak kii it mi ngi fii sëriñ Abdou Góora moom sëriñ si Assou Fall moom sëñ Mamadou Basir waaye moom it soxna si day léppam ndax soxna Ndey Jóob mi nga xam ni mooy ndayam Moustapha Makhtar Anta ko jur Moustapha Makhtar Anta ak Basiru Makhtar Anta ak Falilu Matar Anta ak Faati Xëri Matar Anta mi jur Moodu Maamun mi ñu ma tuddee noo bokku ndey ak baay Marame Matar Anta moom meññ moo meññ soxna Maguette Gaye mi meññ soxna Bali mii toog kon sëñ Abdou moom it wàccuwaay yooyu la fi am nga fekk fi nag mbokki démb mi nga xam ni li nga ko wax léegi suuf rek moo moog alaaji seex loolu doy na muy Adja Kiné mii ak Serigne Seex Fall ak mboolem ñi nga fi fekk ñëpp. ak sa soppe yii toog ñoom ñëpp rek kenn ku ci ne ñoom xale yi yëpp sekk nga ak moom lu tax boo ñëwee ñoom mën nañ laa dalal ndax seen wàccuwaay ci kër gi. Abdou Salaam mii li nga koy defal lépp dara ump ma ci lépp mi ngi ñu koy leeral léegi nag soxna Baali wax na ni xolam sedd na kii taxaw sama ginnaaw di sëriñ Cheikh Diop ni kokki ñun dongo yëpp mooy sunu jëwriñ. li tax bi bi mu ko doonee ba noppi ñu gën ko koo nangul mooy mooy jaayante noobu la koy def mooy da ngay am juddu ba noppi am terangay àdduna boo sukkee ci kanamu sëriñ ne ko jaayante na maag yow dana ko gëm opérateur économique la mooy chef de village bu kokki mooy secrétaire généralu fondation Soxna Baali waaye bu weeru safar jotee ci lay sol kawas du ko summi ba keroog màggal gi jeex daaw rek nga xam ne bi réew mi yëngoo. ni ku jóg ni da ngaa soxla réew mi am na ci ku ñëwoon na ne daa soxla réew mi seex jox ko mu añ ba noppi mu yëkkati ñaari junni ne ko xeeb naa ko waaye yónnee yónnee ma sa numéro wéev far far far far yàlla moom géwal ya mu àndaloon bi ñuy dem seex may leen na deux cent mille kon kii dafa jaayante ak ak ak soxna Bali mii seex bi nag bàjjan nee na na nga xam ni moom bég na xolam sedd na biñ ne yaa ngi ñëw mu wax ko alaaji seex mii trois heures ba tey seex seex ak ma naan gan gi fan la toll ne ma kii dey eh, soxna si fonk na ko boobaak tey waxtu wu det mujj gi man ak sax daanaka jàppante nan waaye soxna si cofeel gi nga am ci moom te mu yàgg te mu xam ko léegi biñ ne at soxna Séema dee ne ma ëpp na ñaar fukk ne ma man mii la njëkk a xam ci ci euh, sëriñ bi waaw ne ma diggam ak sëriñ bi ci man la jaare ma dëgëral ko mu ne ma te man na soxna Baali man naa la ne demal ci sëñ bi diw yóbbu la waaye nag wax ak sëñ bi ne ko diw mii damaa bëgg nga jàpp ko mu ne ma loolu jàppal ni juróomi at yu ne benn yoon laa koy def ndax awma lu dul sama kilifa muy Seex Mamadu Muntaxa soxna si nee na te boole dafay affaire bu sensible nee na moo tax du koy def lu bari waaye li mu wax sëñ bi ci yow nag nee na loolu da ngeen a ànd ay at mu gis ci yow melokaan yooyu nee na xam ni nit doon gi doon kilifa yow teewul moom mii def nga ko muy sa kilifa nee na ndax doy na sëkk firnde réew mépp ne ne eh, eh, nas na na seex na seex alsaan noppi te seex alsaan noppiwul. waaye moom benn kàddoom tax juróomi at ni nga noppi waxoo nee na loolu nag bu ko bu ko doyul ci yow leneen dootu ko doy nee na maamam jii nga xam ni amuñu lu lu moom muy ni sëñ bag bi sëñ ci dëkk bi mu xam ni da nga koo bëgg ba mu xamal ko boppam soxna Baal day faral di wax ne ma moom mooni ma Serigne Touba ku ko bëgg bu ma bu ma xoolee sa kanam rek dinaa ko ci yëg yenn saa yi day dékki jékki ne ma diw moom jub jubluwul la sëriñ bi yenn saa yi man man maan mii ma ñëw ne ko bàjjen diw mi dafa bari pare bari naa mu ne ma waaye ne bëgg na sëriñ bi te ñoom boo xasee bëgg sëriñ bi gisatuñ sa benn sikk te yow yéene yi nga am ci Touba nee na loolu rek war naa mën a tax mu bëgg la donte defoo ko te nga am yéene bi ndax na innamaa a'maalu bin niyyaati ndax boo demee ba ni tuddee nañ Léopold Sédar Senghor aéroport tuddee Blaise Diagne aéroport te Sëñ Tuubaa doon koo xam ni li def ci réew mi kenn defu ko man Cheikh Alassane Sène danaa wuti moyen defi pexe ba aéroport ni Cheikhul Khadim am ni fii ci Touba. loolu nag nee na boo cay mën mu doy nga dolli ci ni musée bi la nga fa bëgg mooy minaare bi gën a gudd ci àdduna bi nga xam ni deux cent nangam mètre la nu indi ko def ko fii ci Touba ngir mu doon monument boo xam ni dañ naan li Touba rek la am loola nag la ca jublu. mooy boo demee Italie dafa am fu tudd nu toore de Pisa nga xam ne nag itali rek rek nga koy fekk moo waral maam Cheikh Anta bi muy dem Makka ah, ak sama faadal la dan faa jaar waaye jàngkat yi bu ñuy jàng dañ naan romb turi déedéet da kone yaa dem ba romb géej gi romb toore ndax ñoom booba dañoo wàcc Italie wàcc France jaar Marseille def fa ay xar baax yu rëy maam Cheikh Anta jël hôtelu 5 étoiles daal dalal ci sama mat faadal ñu ne loolu nit ku ñuul mësu koo def te kooku kat rakki sëñ Tuubaa la di ab taalibeem te te bu ko sëñ bi yónnee mu dem nga xam ni journal Le Petit Marseillais du 20 mars 1928 daa def maam Cheikh Anta à la lune daa daa ne un saint marabout à Marseille venant de Rufisque son arrivée à Marseille une dizaine de Sénégalais musulmans qui se rend en pèlerinage à la Mecque le groupe est par Cheikh Anta celui-ci demeure habituellement à Durbel dans le cercle du Bawal. Mais sa réputation de sagesse et de sainteté a longtemps dépassé ses raisons. C'est la première fois que Mam Cheikh Anta quitte le continent noir. kon nag yow ne bu fekkente ni yéene yi am ci réew ak mbébét yooyu nga am yéene indil ko Serigne Touba soxna si nee na loola nee waxul jëf ji waaye eh, xalaat gi rek dafa doy man nag fii ma taxaw li birndi gëstu nga mbirum sëñ tubaa mooy boo dee seetaan mbooleem ñiy waxtaan ci ci ci yoonu géej gi te nga xam ne dema demagunu maa yomba dañ naan jën yaag mu sànni der bi mu lii mu laa waaye yooya ak jësit ya ku demul maa yomba gis ko doo ko xam dafa am ku ne ku ne ma léegi da ngaa da ngaa a jooy ma ko soxna baalee tax may gaaw a jooy mu ne mun na mun na mu ne ma ndax lan ma ne ko ndax man na dama ne woon gëm naa sëñ tubaa gëmin woo xam ni dootul yokk dootul wàññeeku kii yéem a yónni maa yomba waaye ba ma fa demee ba ñëw dafa mel ni sëñ Tuubaa ma bàyyi fii ak bii ma ni fekk foofu bokkut yoo yooyu muy wax ba léegi ñu ngi fa ba léegi nii ñu ngi fa buñ la dee matt doo ko yëg waaye bu bu demee ba naaw ci la ci sa yaram bi xasan boo ne wokkatoo mu daal di tërgën ca kaw ne jasit tamit benn yoon laa ko mas a gis man te foofa laa ko gise nëgëm ci jamono jii la fa ne asa booba te boo départ quatre heures du matin Libreville la dugg ci oto suba ci trois heures di matin ngay àgg maa yomba foofa nag leen jëloon sunu sëriñ bi dugal ko ci ay gaali loojo àndut ak kenn kenn ngàbbalu ko satala bu ne sama laa ni mal xamidawu kenn du ne rabbana walakal hamdu ñu wàccee ko montagne seentu tag ko ci ab bëgg ko fetal waaye bin tiiree dara génnul moo tax mu ne waxa bëli waxaa bu fii su la saa maa yux di lu asarata wa salaasa ñu jël ko foofu yóbbu ko lambar na mu mu toog fa un an mu mu toog fa deux ans yi manqué yóbbu ko maa yomba juróomi at te nag village bi tax ñu naan ne maa yomba ak fi ak fi ñu yóbbu sëñ bi mat na 4 kilomètres ba noppi ci app bras de lan ko teg ni nga xam ne jësit yi fii fii nii génn di doxantu foofu la nu la nu wàccee sëriñ bi waaye nag ni sa ci jom ji ni sa ci ngor gi ni sa ci tedd nga gi liggéey liggéey bi moom kese te kenn jàppalewu ko ci waaye bii mu ñu bisee dafa teg cin ñurug tay sóor yàq séddale jox ñépp kon nag kàddu yooyu nga wax doy na sëkki kàddu soxna Bali nee na nag yow rek yaa yaa baax di wax ay teraangaam nee na waaye yow it ne def nga ko ci kër gi ndax bii nga waxee ni daan naa fi ànd ay téeméeri nit léegi nee bi nga nee daan naa fi ànd ak téeméeri nit muy teral teraanga yooyee nee na nag loola lalamay may nga def ko ba sañ fee ànd ak téeméeri nit mooy danga xam ne yow ni sa teraanga jiitu na fi mi ngi nuyu bu baax nag sa mag yi nga àndal. ndax nag nangu dogal dafa bokk ci jaamu yàlla yéen a bokk lépp te ñoom a ñoo mag waaye cir bi la yonent bi defal ñoom ñoom ñu nangul la ko ba noppi topp ci sa ginnaaw ànd ak yow jiital la ci lépp soxna si nee na ñoom it mi ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm ndax xol xol dafay affaire bu garaaw nit ki bari ngir mu muñ ko. faw mu am xal bu sallim dëgg dëgg dëgg pour man koo seere nit sax man na laa mag ne wanee ni jox na la cër waaye ci biir yëf yi bu ngeen ñëwee ci ku mel ni soxna Baali dafay dafay jiitu njëkk nuyoo di wanee ni man maay magam waaye ñoom ne la ñuy ci ginnaaw waaye nag yow it ngay nit ku am yar ndax saa bu nu ñëwee bala ngaa nuyu soxna si da nga gersu wër leen ci mboolem ba gis leen ne leen ñëw leen. loolu nag la sëñ Tuubaa waxoon ni waj al saxirana yu axirul kabir wajal kabirana yuxinu lu saxir waaye waxaat ni nag tarixatu adda bi rahmatul saxir kal ummi wal abi wa tawaqirul kabir kon ñu ngi lay sant dila gërëm ba noppi yow yonent bi rek moom nga mës a bëgg moom nga mës a visé musoo xool leneen bëgg googu nag yàlla ci boppam moom moo njëkk ne man ak samay malaaka dañuy julli ci moom kon na ñëpp julli ci moom boo boo boo demee ca téere bu tudd dala ilul xayraat deux cent tur yonent bi yëpp foofu la ko imaam Josoli dajale muhammadun ahmadun xaamidun mahmudun axidun wahidun maayi xaasirun xaayibun tëhë yaasiin tayiru tayibun saydun rasulun nabiyun rasulu rahma xayimun jaamihun muxtafin muxtafa abdoulaye abibulaye safiyulayi gannaaw dafa xat leen leeneen li ci des boo boo nu fekkee poroxaan danaa la ko yeggaleel salaatu fi kulli sahrin wa fi safar